ñuy financer l'ensemble des pays c'est un lobby boo xam ne ay nit ñoo ko te seen intérêt rek la ñuy xool la banque mondiale c'est pas une banque qui appartient ay nit ñu am doole ay lobby financier ñoom ñoo monté ay mécanismes financiers teg seen i charte ne nii ak nii dañuy def ku bëgg ñu financer la ci ab dëkk nii ak nii ngay doxee te nii lañu lay nii lañ nii lañ koy defee banque boo demee banque def prêt banque boo lay jox condition yi ngay defee prêt te bu te ñun ñëpp a sukkandiku ci financement des banques moom la ñuy jox rupture boobu mën na ta mënut a nekk mënut a ñàkk du am mën na la ñaare bi mooy système ils ont des antisystèmes y a plus d'antisystème c'était un élément de langage boo xam ne ñu ko doon utiliser ci biir élection campagne bi rek gis nga ne benn bokk yaakaar am na fi ak benn bokk yaakaar bis bu opposition bi <laughs> loolu wax naa ko ci tere. wax nga ko fi Mimi Touré. Mary Teuw Niane maître Moussa Diop. nga jël kii euh, l'ancien DG de l'ONAS Habib Sy euh, nga jël Pap Samba Mboup moy Diomaye Diomaye mooy Pap Samba Mboup bu hmm. PDS nga dug mais bo xolé Moustapha Guirassy mais ñoy ñep Benno Bokk yaakar la da ngay dem sax ba ben instant da ngay am problème pour identifier wa pasté fi ak wa Yewwi Askan Wi ci seen bir hmm. wa kon Benno Bokk yaakar mo jàkkaarloo morom Benno Bokk yaakaram kon y a pas système et le vrai système c'est l'état hmm. état moy système général Moussa Fall système la général bu force armée Dieye système la les mécanismes financiers administratifs yi fi nekkoon système la ba bëgg a indi ay réformes yu profond yoo xam ne moom mooy tax système bi changé mais le vrai mot système c' est état mën na leen nag changement moo ko doon jekk changement mooy fekk fi li fi baax nga ñoŋal ko mu gën a taaru li fi bon nga jël efface éponge tooyal ko efface ko moom set wicc nga recommencé ko à zéro loolu mooy changement donc je crois que tey ils sont actuellement dans le cadre du changement mais nekk luñ ci cadre anti système nekk luñ ci cadre rupture parce que loolu mënul nekk c'est quasiment impossible la rupture bokk na ci lu ñu waxoon sëriñ si lu ne nañu ne leen ko fi saaga bu ne xas leen fi guddeeg bëccëg fan lañ dem jë Tuubaa lañ jëm jóge ba dem ci mbay si mbay si Mansour danañ dem Kaolack danañ dem ci jàngu bi parce que xam nañ ne avec le futur yàlla bu mu am lii di ñëwaat mm-hmm. sëriñ si rekk ci mën dara parce que talibé serigne si ñoo leen votel suñu kër kilifa diiné yàgg naa ko wax ci plateau ñuma ci tiktok fu ne ku leen xeeb xeeb sa musiba ku leen ŋàññi ŋàññi sa toroxtaange mhm. et ils seront obligés de faire la continuité ils ont parlé de direction des affaires religieuses et lan xaw lan des diplômés et la raison des diplômés arabes mais direction des diplômés arabes amna fi gouvernement Sénégal tek na ko fi Mais quand on parle de, de, de, de réinsertion des diplômés arabes, l'enseignement, ministre de l'enseignement professionnel, lui, il <laughs> éducation arabe, c'est enseignement là beaucoup. Bien mhm. sûr. ñaare moom mooy direction des chefs religieux chefs religieux soxla wuñu direction chefs religieux c'est un alibi. man de bu ma sëñ Mountakha sëñ Mountakha mu sëñ Saliou mii caatu sëñ Saliou sama sëriñ su ma newoon damaa bëgg ngeen émission bi nii nii nii nii barke Cheikhul Khadim tey laa mujjee bàyyi wax kon ñooñu soxla wuñu ay environnement bi nga xamante ne moom mooy permettre dëkk yi nga xam ne ñoom la seen i maam sanc ak daara yi seen maam yi sanc ak jàngale ngi ñuy jàngale pour nit ñi jub ñu renforcer capacité boobu. Mhm. parce que ñoom dañuy am suñu borom may na leen ko ba noppi dañ ancien sëriñ doo ko dégg. ko dégg ancien président ancien moo fi am nañu revenir a la raison te xam ne tey jii ak lu ñu mënti wax ñu ngi leen di xaar ci position yu bëri yoo xam ne ñoom jox war nañ ko fi sénégalais nag ñoo war a góorgóorlu. muy pouvoir muy opposition ñun ñëpp ñu suñu xel ak suñuy xalaat jàppale leen parce que quoi qu'on se aussi il le mérite xeex nañu ba yegg si au pouvoir avec tous les moyens possibles ñu amoon kon ñun tamit dañoo war a mën a jël suñu doole yëpp andi ko këpp ko ci ñoom ngir ñoom ñu mën a jëmale réew mi kanam parce que bu réew mi suuxee ñu àndul suuf bu Bassirou Diomaye Faye wàññee ceeb ak diwlin ñun ñëpp ko yëg su fekkee ne ceeb ak diwlin yokk waat na dañ koy yëg actuellement y a la guerre Israël ak Iran le coût du baril de pétrole yokku na dem na bu dugg ci ay quatre quelques dollars mhm. bu baril de pétrole yokkee automatiquement dund day yok mhm. on parle de la guerre de Russie avec Ukraine ba légui ñu ci négociation yo xamantene c'est pour dire que le coût social de la vie partout dans le monde entier mon cher. Sénégal rek yokkul lu ne. c' que dañu utiliser élément de langage tund gi. Mhm. mais képp ku génn Sénégal dëkk boo dem da nga gis njëg yooyu yokku dund ko yokku na situation sociale ba c'est précaire. mais yàlla na rek may ñu dem ci. ayca jaajëf Pouy ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax je pense que analyse bi leer na et c'est très pertinente aussi alors dañuy dugg ci li nga xam ne mooy suñu de dernières rubriques dañ ko dooree ak rubrique bu Mami njaay li nga xamante actu du net la ko daal di duppee tey muy wax si ki nga xamante ne mooy le couple Oumy et